jërëjëf ginnaaw bu ñu baaloo ñëpp àq sëñ Abdou Abdou Khadim Awa Ba di feddale kóllëreem di sant mbokk taalibe ci taxawaay bi ndax ren da koo fekk ma nga itali ndax foofu wax naa leen ne dañ ko faasoon mu def fa bu rëy rëy rëy rëy pare nag am yu muy waxtaan ak taalibe yi moo tax mu xaw a am ngant tuuti euh, comme ni ko imaam bi waxee julli gi ren ñëpp xam nañ ne xaw na doy waar tuuti mais loolu moog jamono ñoo ànd àdduna mooy doxee noonu imaam bi wax na ko ci discours nañu rafetal xol yi bokk nday bokk nek nek ben ah gëm yalla di wëri ci ndigal di bay ay téré suñ ko défé rek baña xép kenn baña yaq daru kenn dëkk bi dina mëna a egg fuñ ko bëgg xam na ci korité gi waxon na ko néna ko jàmm rek moo mat ñaan ndax boko soké do xam yow fan lay mujjé ndax bari na ño xamné dëkk bi lepp ay caméra la bari na ño xamné biñ ko défé amuñu ndax jël nañ leen yobbu nañ leen seen kilifa yaa ngi sonn di dem subaak ngoon kon nag ñoom ñi koy def nañu xam ne dëkk bi lépp ay caméra la te loo ci dugg di ko jël ñu ngay filmer suñu paree bu ñu tegee film yi doo am jàmm kon loolu xale yi war nañ cee yeewu te bàyyi li ñuy def jël seen kart rek ba bés ba ñu dem woteel ki ñuy woteel jàmm dellu siwaat ci dëkk bi loolu daal moom moo ta ñaan waaw jërëjëf sabab loolu ci doléance bu yàgg la comme ni ko le maire waxee am nañu littoral bi mais fii euh, ñu ngi ci jox jéego yu jaar parce que gis nga boo xoolee ñi fiy nekk yëpp wax nañ ko waxaat ko mais dox nañ ci dox boo xam ne am nañ ci dox nañ ci jéego yu kawee suñu njor ba bëggoon nañ ko tàmbali sax mais dafa xawoon a xat mais yàlla mën nañoo dimbale bu génnee ci lii bu ñu ñëwatee balaa ñuy julli dañ fekk fii yëpp ñu paayo ko def ko ay garab def ko kii ñuy mën a yem fii jërëjëfati